kuréel gi njabootee ñi nga xam ne rek ñoom ñooy albinos yu nekkee ci réewum Sénégal ndaje mu mag nag la ñu doon amal ci dëkk bu sell bii di Touba moom la ndaje nag la ñu ci jublu woon bokk na ci bis boo xam ne dañuy seet seen yaram te du ñu fay dara ñu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di albinos yi rawatina ci jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy jànkonteel journée de solidarité donc boo xam ne dañ ko jagleel xale yi nga xam ne dañu dundee laago bi ñuy wax albinos ak xale yi nga xam ne euh, seen loxo jotul seen digginaaw wala seen waajur seen loxo jotul seen digg ginnaaw wala xale yi nga xam ne aussi amuñu ay waajur. ñu ñëw fii tey euh, organiser fi journée de consultation gratuite maanaam saytu seen i yaram euh, undil leen aussi li ñuy wax ay ay ay ay garab ay médicaments. lu jëm ci wàllu ko dund ay jumtukaay ci wàllu ko wér yaram jébbal nañu ko. ñoo di albinos yi nekkee file. ay crème solaire muy ay antibiotique muy loo xam ne dina leen mën a dimbale ba naaj bi du leen mën a lor. mais aussi boole ko ak ay dund maanaam ceeb suukar ak dawlin donc euh, ci vraiment lu takku. ci ndaje moom yi nga xam ne rek moom la ñu doon amal becc nañu jafe-jafe yi nga xam ne rek moom la ñuy jànkonteel bokk ji itam lu jëm ci wàllum crème soler yi di jumtukaay yooyu nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngir mën a fegu ci naaj bi loole day jàmbat nañu lool li mu seeree ak albinos yi niñ ci jafe jot. gis nañ ne ba léegi discrimination bi Sénégal dafa jéggi dayoo. nit ñi considéré wuñu puune yi boole wuñ leen ci seen i programme duñ leen dimbale duñ leen nemmeeku gis nañ ne aussi vraiment ci période Covid bi tey euh, ci premier vague bi ñi ñu doon dimbale bokkoon nañ ci mais ba léegi deuxième vague yi boole wuñ ñu ci maanaam joxoon nañ leen ay kit alimentaire joxoon nañ leen lu ba waroon nañu séddale donc loolu maa ngi ci tàllal sama loxo nguur gi pour ñu jàppale albinos yi si li nga xam ne mooy euh, ceeb bi ñuy séddale. dëwlin ñi mais aussi ci xaalis bi ndaxte ñoom ñëpp fi nii tey kenn ku ci ne sa loxo jotul sa digg ginnaaw di ñaax aussi population sénégalaise ci gëdd bi nga xam ne war nañ ko jox ñi nga xam ne ñoo si ñooy suñu naataango puune yi maanaam puune du sarax la yeyoo dañ ko war a considérer comme citoyen dañ ko war a jàppale dañ ko war a encadrer crème solaire yi cher na balaa nga koy am da koy commande ci pharmacie ñu commande ko extérieur mu ñëw bañ ko gëjee am yàgg na ngir lu jëm ci wàllu ko tàggat gekk yu ni mel ba ñoom ñooñu itam mën a bokk ci ñuy tabax réew mi ëllëg ab centre bu nga xam ne itam si ji nañu ko ngir gën leen a mën a jàppale ci wàllu ko tàggatu gi waaye itam jàppale ñi nga xam ne dañoo néew doole lool dañ fi am benn centre boo xam ne dañ ko fi tijji muy centre boo xam ne dafay dañ ko jagleel soxna Ndeye Mati euh, Ngom Diop Euh, mi nga xam ne moom mooy directrice su centre bi pour mu yor fi ay xale yi ñuy wax ay puune mais aussi yor ay xale yoo xam ne seen loxo jotul seen digg ginnaaw te ñu nekk ci ay situation yu difficile euh, ñu bëgg daal tàggal leen ba incha allah danañ bokk ci ay xale yoo xam ne maanaam dinañu euh, taxaw ci dëkk bi ci ay at yu yu néew ci kanam incha allah doon ay njiit doon ay kilifa. mën a nas mën a nocc. ndaw yi albinos yi nga xam ne rek ñoom ñoo jot googale ak ndimbal rafet lu baax jëf ju am solo jooje nga xam ne kuréel gii leen jaboote def na ko ngir gën leen a jàppale waaye itam gën leen a jege ñoom itam bokk na ci li nga xam ne itam ñi ngi koy jàmbatal seen bopp muy jafe-jafe gi nga xam ne am nañu ko ngir jot ci crème solaire yi di jumtukaay yi nga xam ne moo leen di aar ci naaj bi. doyen lim ñuy jëriñ moom bari na surtout mu ñëwee ndaxte daañ ci gis euh, donc yittewoo trop surtout crème solaire bi période bi nga xamante ne ak sedd bi crème bi ñu ko diwoo dina leen mën a jëriñ dara bi ñu génnee ngelaw li insi de suite euh, alimentaire bi aussi itam fu mu ñëwee aussi itam baax na ndax période bi ak Covid bi arrangé na parent yi bëri parce que métti na daal ñoom en ndaje yu ni mel nag ñu koy yaatal lool ci réewum Sénégal ginnaaw ba nu ko amalee nag ci Kaolack ndàngaan amal nañu ko nag kiy dëkk bu sell bi di Touba boole nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy albinos yi waaye tam ak jàppalante ci seen biir ci moomale ndaje porox ndolo nañu tàllal loxo nguurug Sénégal ngir mu gën leen a bàyyi xel ci réew meek na muy doxee.